mel na ni démb tuddal nañ leen ñaari xadis <clears throat> yu aju ci xisaalul fitrati benn ba lamb juróom te ñu waxtaane ko ma nga ca Buxaari ma nga ca Muslim ñaareel bi nag boole juróom yooyu ak yeneen juróom muy fukk muy xadiisu ndey aïchatu ca saxiix muslim yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax ne fukk ci fitra la bokk ashrum min alfitrati bu njëkk ba mooy qossu sharibi wàññi naanu wa ifaau lixyati lëwal sikkim wa siwaaku soccu walistin walistinshaqu bilmaai sorox ndi ko ndox wa qossul azfaari lelli we wa ghaslul barajimi dagg uh, uh, raxas raxas raxas albarajim wa natful ibti xuuf wala buddi karawi poqotaan buddi kawari poqotaan wa xalqul aanati wat kawari nëq wa intiqaasul maa yi intiqaasul maa ñu ne mooy listinja eh, laabu laabu am na ñu ko firee neneen daañ ci ñëw Musaab ne ma fàtte fukkeel ba xanaa muy gàllaxndiku eh, fukk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudd <clears throat> yëpp ci sunnay cellete ak set la bokk te yonent yi wax naa démb ñoo jël ñoo jël ownership ndax li yàlla bind ñoo ci gën sët waaw yonentu sallallahu alayhi wa sallam e, bu daan deferu dañ ko daan seetaan te li yàlla bind kat moo ci gën a rafet waaw waaw waaye dina defer karaw gi dina defer tabarakallahu waaw musuma gis ku civilisé comme Mawlana Rasulullah amut sallallahu alayhi wa sallam lelli naanu mooy dagg ko naanu mooy karaw yi sax wër wër tuñ lu mel ni moustache i'faa'u lihyati mooy bàyyi karawu sikkim te bañ ko def ni ñoo def naanu ñu ne li tere mooy defe ko ni ko yéeféer yi daa xam ne dañoo wat sikkim bi ba mu set ñu bàyyi moustache yi yonentu sallallahu alayhi wa sallam dana wax ci beneen xadis ni nañu lëwal sikkim bi ndax bu ñu niroo ak ak yéeféer yi waaw bu ñu niroo ak eh, yéeféer yi mushrikuun yeeg waaw ñuy bokkaaleeg borom bi tabaraka wa taala jarul yenn xeex yi nag waaye sunna la jarul nag yenn xeex yi waaye sunna la am na ñu ko def waajib nag loolu euh, beneen débat lii ndax wér mooy du waajib mukk soccu tudd nañ ko démb ak jamono yuñ ko soxlawee waaw yonentu wax ne bañul woon sonal nit yi dana ko def farata fu jàpp jotee ñu soccu fu julli jotee ñu julli ñu ñu ñu soccu soog a julli moo ah. tax ku nekk rek war na ko bàyyi xel wax naa démb ne bu ñu gisee ku set wala ku civilisé ñu ne diw tubaab la te xamuñu ne tubaab yi sañ nañu xëy wala bokk ñu ci bëri ci ñoom sañ nañu xëy ñu laal ndox sañ nañu ko te njabootu yonantu sañu ko mukk waaw bi civilisation islamique dugagul Europe booba e, e, xàmmeewuñ woon liif ak ceinture waaw waaw seetal loolu seetal loolu nga xam ne jamono bi Qurtuba di fees dell ak ay université plus de quatre-vingt-dix pour cent population européenne bi mënuñoo boo leen bindale seen tur mënuñ ko liir y compris y compris eh, njiit ya njiit ya buur yaag ña ca top seetal seetal seetal musiba boobu defee nag yow nga fàtte sa sa héritage ba foog ne tubaab bi mola la moo la civilisé loolu ndiku ngeen gis ko ci njàpp eh, lelli lelli wee bu dee xaslul barajim muy raxas barajim xataa bi nee na mooy setal barab yi nga xam ne tilim dafa dajaloo bu ñu tuddee barajim liñ ca namm li ñuy njëkk xalaat te baat ba loolu lay mooy pas-pas yi nekk ci gannaaw baaraam yi wala ci baaraam yi bokk baaraam bu nekk rek am na ñetti pas-pas ba mu des baaraam ndey bi moom ñaari pas-pas la am pas-pas yooyu da ngay gis ne tilim yi dafay dajaloo di ko nemmeeku di ko setal di ko raxas même en dehors de euh, wudu muy njàpp kooku jullit bu nekk war na ko war na ko sonne waaw bokk na ci sunna sunnay fitra bokk na ci waaw eh, pratique sayyiduna rasulullahi ak mbokkam ya alayhim salaatu wassalaam bu dee natful ibti mooy dëñal karaw gi sax ci pokkutaan lu tax yonent bi tudd eh, buddi te tuddul wët parce que buddi moo ëpp njëriñ tax dafa affaiblir cosaanu karaw yi dafa néewal xet gu bon gi génnee foofule waaw gu bon gi génnee ci biiru nit ki di wal jëm ci pokkutaan yi boo ko buddee daf koy daf néewal su dee wat la nag ñu ne du ko néewal woo néewal waaye boo ko wotee it wala nga am sa crème épilatoire ak na set rek waaw waaye nët fu nag moo moo gën nga tudd na it wat naq naq walla karaw yi naq mooy karaw yi nga xam ne moo wër eh, awra góor wala awra jigéen waaw wala awra jigéen waaw intiqaasul ma ñu ne mooy listinjaa u mooy laabu moom geen di wax euh, tàncu tàncu euh, Manaawi nee na kinaaya la an listinja al istinja bil ma wala sax wesu wesu muy natax lu farji bil ma nee na am na ñu ne sax mooy nga wàññi saw mi wàññee ko ndox intiqaas dafay firi wàññi ah ne bu nit ki eh, ture ndox ba pare eh, sotti ndox ci sakaram a tax saw mi dagg mu ne ndax ndox daa dagg saw mu ne moo tax ñu tuddee ko eh, intiqaasul ma ay intiqaasul bawli bil ma ah, tudd na it gàllax ndiku eh, eh, kii solo xadis bi ni defe na waaw parce que daf ne dafa fàtte fukkeel bi mu ne ah xanaa muy madmada ñu boole ko ci bon eh, yii yëpp am na détaillé maanaa dafa am qaayida fiqihiya buy wax ni set lu ñu sakku la waaye lu ne am na bërëb am na jamono annawaaha amrun matlubun inda alxaajati aw bayna alxiini wal axar naka ngay déggee loolu mooy am na ci yii yoo xam ne benn yoon rek lay am ci àdduna sunna yi fitra am na yoo xam ne benn yoon rong nga koy def ci sa dund lu mel ni jongo ah, benn yoon rek la ko eh, nit ki di def a ah, wax nañ ne li gën mooy eh, xale bi ñu teel ko ko defal buñ ko mën a def ci bésu juróom-ñaareel bi am na ci yu nga xam ne dafay baamtu lu bari am yoo xam ne rarement lay baamtu waaw maanaam bu soxla ñëwee bokk na ci yi baamtu lu bari lu mel ni galaxndiku ak soroxndiku ndax ci biir njàpp la nekk wala lu mel ni socc booy pour julli wala pour jàngal Qur'an wala bu lekkee bo ku lekk ba pare wala yeewu ci nelaw am na yoo xam ne kuy dem ci jullik mbooloo wala jullik ajuma wala jullik iit dañ koy soxla nga xam ne bës bi daf koy laaj waaye ña ngay dajee jil tamit te bu dee ña ngay dajee jil nag foo jëm rek war nga seet sa bopp rawatina nag bu dee ci jàkka la ngay dajee ci mbooloo wala ngay jëm ca bërëb boo xam ne dañ faa jaamu sama borom tabaraka wa ndax boobaa dangay lor ñeneen ñi waaw lor ñeneen ñi moo am na xeetu lekk yu nga xam ne bu ko nit lekkan yonent bi daf koy tere mu ñëw ci jàkk mel ni laaj dafa lor ñeneen ñi a lor ñeneen ñi waaw te lépp luy lor keneen rek ñu moytu ko gis nga yonentu sallallahu alayhi wa sallam na ku tukki sax bu mu bu mu ne bu mu agsi rek këram te woote wut wala yëgle wut mu ngi dikk mu ne parce que bëgguma nga fekk sa jabar mu mel noo xam ne du neex a xool waaw xata tam tashi xata tam tashita shaaya waaw mu ne ba borom kara gu jaxasoo peñewu wa tastahid al mughayyab waaw mu ne bu fekk ki nga xam ne jëkkëram newul fi woon tax toppatoowul woon boppam nee na mu bañ mu bën a boog Uh, wat karaway karawi naqam maanaam mu defar boppam rek waaw wax naa leen listihdaad lañ koy tuddee lu tax parce que weñ lañ daan jëfandikoo waaw am na yoo xam ne nag ah karaway màgg ba àgg ca wala we màgg ba àgg ca maanaam soxla lay doon waaw karaw yi naanu commencé gudd nga wàññi ko ba eh, dégg nga der bi di feeñ sa eh, wee noonu nga dagg ko waaw xanaa am na ñu nga xam ne tabaarakalla eh, tabaarakalla eh, li leen wee jaral kenn xamul lan la te waaw na gaañ nag waaw mën na gaañ yoo yoog ka wari naqak ni ko imaam Nawawi waxee rahmatullahi alayhi waaw ah, eh, na am na xadis buy wax ne dañu waxtul ci dagg naanu ak lelliwe ak xuuf poqotaan ak wat naq ne duñ ko bàyyi lu ëpp ñeen fukki guddi mu ne wax firiwul ne danga nga war a bàyyi ñeen fukki guddi yu ne nga nga nga nga nga defit ko waaye day wane ne ku toog ba ñeen fukki guddi ba uh, uh, nar a romb ko yaa ngi def musiba maanaam ëpp na waaw ëpp na ëpp na yooyu <clears throat> ci xel bu dee li ñu tuddee lelliwe nag am na am na façon bu ko borom xam-xam yi jàngalee we naa imam Nawawi tudd na ko ca charxam ba mu charxe saxi muslim wax naa leen imam Nawawi kenn du moom moo tax ñu yokk yitte yi te ñeent fukki at ak benn jëm ñaar la dund waaye li mu bind kenn xamul na mu toll moo tax bés bu set rek na nañu baaxoo jàng bind waaye bés bu set nañu bind li ñuy jàng rawatina leson yi nañ koy bind dañuy jël not te incha allahu balaa yàgg dinañ tàmbali di def nag ay laaj aki eh, dégg nga eh, laaj yu jëm ci li ñu jàng ba xam-xam nañ ko déet waaw waaw dinañ ko dinañ ko tàmbali parce que itamit boo dee jàng passivement nii rek mën nga fàtte lu bëri waaye del jël not di bind waaw mu mu boo dee boo dagg sa we li ñu gën a sopp nga njëkkee weyi loxo yi boo dee njëkkee weyi loxo yi nga njëkkee ndeyjoor boo dee njëkkee ndeyjoor it nga njëkkee baaraam bi bi sàbbal al musabbiha waaw naar yi wala yaaram yi euh, saagakaay lañ ko tuddee woon sababa yoonoon tuddee ko al musabbiha bi biy sàbbal yàlla waaw moo topp ci baaraam day bi moom ngay njëkk dagg weyam teg ci baaraam digg bi teg ci baaraam bensir bensir moom ngeen di tuddee de ring finger mooy baaraam bi ñoo takk jaaru teg ci alxinsir mooy eh, baaraam sànqalañ mooy baaraam bu tuuti bi nga soog a ñëw ci baaraam ndey bi mooy al ibham soo paree ci ndeyjoor bi nga dem ci càmmoñ bi càmmoñ bi nag nga njëkkee baaraam sànqalañ bi teg ci baaraam jaaru bi teg ci baaraam digg bi teg ci baaraam sabbalukaay bi teg ci baaraam ndey dem ci tànk ndeyjoor yi tànk ci ndeyjoor bi nga njëkkee eh, baaraam bi nga xam ne mooy baaraam sànqalañ bi moom ngay njëkkee dem ci baaraam jaaru bi baaraam digg baaraam sànnekaay wala baaraam sàbbalukaay waaw teg ci baaraam ndey bi soo boobu noonu ngay njëkkee bu dee càmmoñ bi nag nga eh, eh, eh, tàmbalee naka la tuddati maanaa tànk tànk ndeyjoor bi laa ne da ngay njëkkee baaraam sànqaleñ bi teg ci baaraam jaaru teg ci baaraam digg teg ci baaraam sàbbalukaay teg ci baaraam ndey nga dem ci tànk càmmoñ bi njëkkee baaraam ndey dégg nga teg ci san sàbbalukaay teg ci digg bi teg ci baaraam jaaru teg ci baaraam sànqaleñ maanaam sens inversé lay doon mu mel ni waxtu waa ngi eh, eh, naaj si wala gudd si tabaarakallaahu ñu yemale ko foofu ba suba ak jàmm defe naa ne ah, xam nañu eh, li nga xam ne mooy lenn ci ni ñoo doxalee eh, eh, sunna yi nga xam ne mooy sunna yu fitra waaye bu ñu waxee yii nag dafay yóbbaale yaram yëpp waaw fépp foo xam ne rek am na tilib diggante baaraam yeeg bakkan beeg dégg nga barab yi nga xam ne dafa dajaloo ci yaram wi tey am tilim di fa dajeeg wala biir nopp nga xam ne mën na tilim ba léeg mu yàqal la sax dégg ak fépp foo xam ne ñaq wala pënd nekk na fa ci yaram e, kuy njabootu yonantu sallallahu alayhi wa dafa war a sonne loolu ba tabaarakallahu mu set ndax diine ji kat diine yi set la yal na yàlla setal suñ biir setal suñ biti nanguñu ci àdduna nanguñu ci àlaxira bi barakati maulana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam